الجود والخدم حمد وشكر ak internet mu fàttewul bés bi mbégte kontaan la ñu am saa su nekk bu waxtu bi jotee Eh, ñuy feggoo ak yéen ngir jukki leen li nga xamante ne si ëttu yéenekaay yi dañu koy daal di xëyee saa su nekk ci seen i xët yu njëkk eh, tey di yemoo ak eh, alxamis ñaari fan ci weeru mai atum 2024 dañuy daal di ànd ak yéen doore ko ci coow li nga xamante ne si moo ëpp ci li ëttu yi xëyee ni ki tey ci seen i xët yu njëkk moo xam muy Tribune Quotidien L'As Vox Populi Soleil National ak li nga xamante ne si moom moo di Libération moom ëttu yéenekaay bi ne démb bari na ñoo xamante ni nelawuñu ci réew mi ndax xol bu naqari te jeex li ko waral mooy rapport yi nga xamante eh, kii di rek eh, njiitu réew mi ki Bassirou Diomaye Diakhar Faye doon na ko daal di sàkku eh, ngir ñu publier ko ëttu yéenekaay bi nekk doon laajte Faly Ngoye ngi ndax yooyu le rapport daal dinañu koy publier la ko bi la ëttu yéenekaay di le quotidien ca loolee rek la daal di xëy di ba tax ne rek muy àddune képp koo xamante ne si rek dafay daal si rek dafay daal di ñàkk yërmande ci aw askanam ba egsi ci régime bu bees bi fi daal di nekk rek euh, baye boo nga daal leen di jàpp wala régime bi nga xamante ni moom moo fi daal di jóge rek ëttu yéenekaay bi di àdduna képp kuy wër rek ku nekk ak ku ñàkk yërmande euh, ci aw askanam ba daal di egsi rek ci régime bi fi daal di jóge baye boo nga daal di jàpp moom ëttu yéenekaay bi ne li ñu def ci ay njombe ak ay léexoor loolee rek ku ko daal di loxo dar gémmiñ ëttu yéenekaay bi di àdduna gars yi kay bàyyi ñu dara ndax li ko daal di rek dooree euh, ci 1000 milliards yi ñu dajale woon ci Covid 19 suuf si nekk ci dëkk bi euh, ba ci rek fële nga xamante ni moom moo di Sabodola di or ba fa daal di nekk moom ëtt yéenekaay bi ne lépp rek dañu ko daal caxat-caxatee ba seen xol sedd eh, maanaam ci gàttal soo bëggee dégg dëgg gars yi dañ doon jaawale seeni poos ak gafaka askan wi eh, ba tax na ëtt yéenekaay bi di le quotidien xëy ni ki tey rek fësal ko waaye at bi it ne eh, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom mi nga xamante ne si rek dafa daal di bëggoon lii di rek ay dossiers yu mu doon laaj doyal na ko sëkk ndax ni ki démb OFNAC daal di nay teg rek ci kaw taabal bi lu toll ci ñeent fukki dossier yoo xamante si waxtu tembe ñoo ngi xaar euh, moom mi di njiitu réew mi président Bassirou Faye ngir rek mu daal di cay def euh, ay enquête ak i leeral moom ëttu yéenekaay bi di àddu ni ne euh, ñi doon wax rek mbirum Prodac moom Mame Mbaye Niang daal dinay taqee ci mbir mi rek ba taq ci répp waaye tamit nee na rek ki nga xamante ne si rek moom moo di Moussa Diop bi jiite woon Dakar dem dikk moom moom la ñu ko daal di waxal ci rapport yi ëttu bi nee na rëy na ta foor ba tax na ëttu bi di àddu ko moom mi rek di l'ex DG bi nga xamante ni mooy 3D yéenekaay bi ne ne la ko daal di épinglé euh, toll na rek ci ki nga xamante ni si moom moo di 83 milliards di Moussa Diop mi jiite woon Dakar dem dikk euh, ci ab oto bu bakkane boo xamante ni daf ko daal di jëndoon te loolee ëttu yéenekaay bi ne na la ëpp rek euh, ko daal di jëlee rek ci koppar yi ñu doon dajale ci biir Dakar dem dikk ba tax na ëttu bi ne moo taxit rapport yi daal dina koy rek juut lii di baaraamu tuuma ñu jàll ci beneen ëttu yéenekaay di l'indépendant moom it noonu rek la daal di xëyee ni ak ak rek eh, yenn ci ay rapport yi nga xamante ni de des comptes daal dina koy fësal ci diggante atum 2021 2022 jàpp 2023 moom ëttu yéenekaay bi naan ñiy wax sax 40 dossiers mbir ma ëpp na ko ni waxtu bi ñoo ngi àddu rek la toll ci cinq dossiers yoo xamante ni daal dinañu koy teg rek eh, ci li nga xamante ni moom moo di ci table président de la république ëttu yéenekaay bi ne maa lay limal secteur wala rek eh, ñi nga xamante ni mbir ma daal dina leen di jotalaal bokk na ci Prodac Dakar Dem ak fële nga xamante ni moom moo di société minière euh, ba ci rek 3FPT loolee lépp ëtt yéenekaay bi ne ku ci nekk la nga daal di def rek mi ngi tege euh, ci kaw taabalu rek président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba tax na bi la ëtt di àddune euh, ña doon wax naan rapport am na am déet fii daal dinay leer nañ ñi ndax ñi ngi cay rek ki nga xamante ni moom mooy di Mambay Niang borom Prodac ak Abdoulaye Seydi Sow Mansour Faye ba ci ki nga xamante ni moom moo di Moussa Diop bu Dakar dem dikk moom ëtt bi naan Moussa Baraka moom moo daal di jël réew garde gi ndax ñu ngi wax ci lu toll rek ci 83 millions yoo xamante ni daf ko daal di jëlee foofee ca Dakar dem dikk jëndee ko ab oto bu bakkanee bi la ëttu moom moo daal di rek xëy di fësal euh, lu ñu mel ñu jàll ci beneen ëttu yéenekaay di Tribune Quotidien nee na 40 dossiers sur la table loolee rek ginnaaw sàkkuteef gi nga xamante ne euh, président Bassirou Diomaye Diakhar fay doon na ko daal di sàkku moom ëttu yéenekaay bi ne mode fast track ci boppam la ñu daal di activé jamono ji ndax donte ne njiitu réew mi sax euh, doon na rek daal di jéem a nëpp nëppal lu jëm ci yenn ci ay rapport yoo xamante ne dafa ne woon bu ñu ko daal di publier waaye dafa mel ni gars yi kenn mënu leen a tàgg ba du ñu tawte ndax li ñu gis ni ki démb rek ci les rapports euh, tere naa nelaw yu bari moom ëttu yéenekaay bi ne ci dëkk boo xamante ne ngir xiif fi lekk daal dinay jafe lool liggéey moom loole dañu ko daal di jëlale waaye ngir nga jàng ak faju bu mucc ab ayib loolee eh, ku ci suñu boroom jàppalewul dëgg soo wattuwul rek doo ko daal di fekkee moom ëttu yéenekaay bi ne moo ne de eh, boobule jamono rek ñi nga xamante ni dañ leen daal di dénk suñuy koppar ñi ngi caxat-caxatee di def leen neex eh, di jaawale li nga xamante ni moom moo di seeni poos ak rek gafaka askan bi moom ëttu yéenekaay bi di àddune mbir mi mën nañ ko daal tënk rek ci ñetti mbir maanaam mbirum escroquerie la ñu daal di nemmeeku ci yile rapport détournement des deniers publics ba ci li nga xamante moom moo di association des malfaiteurs euh, noonee la ko bile ëttu yéen kaay tëddee rek ne loolee la ñu daal di gis rek ci nga xamante ni euh, moom moo daal di xew ci yooyu les rapport observateur moom xëy rek di def ab observé jëm ci lu ni mel nee na rapport diggante 2021 2022 jàpp 2023 euh, loolee la ca daal di xew rek musiba mbàbb kumba la moom ëttu yéen kaay bi ne gars yi dañu daal di rek def lu leen daal di neex jëm rek ci ay scandale Dakar dem dikk Moussa Diop ma ko daal jiite nee nañ foofee rek nu ko neex la ko daan doxalee waaye ëttu yéenekaay bi dikkaat tamit euh, ci li nga xamante ne si rek moom moo di traitement principal bu PCA moom it ñi ngi daal di àddu nee na 148 millions yoo xamante ne si rek euh, PCA bi dañ ko ko doon doon bokkal foofee rek ci ACR moom ëttu yéenekaay bi moom moo ko daal di fësal waaye àddu it euh, jëm ci 1000 milliards yi ñu daal dajale woon ci mbas mbas mi di Covid 19 moom ëttu yéenekaay bi ne euh, foofee moom mbambu laa moom moo fa daal di am ndax ay surfacturation yu kenn mosul gis ci àdduna la ñu daal di gis ndax ca jam ñaajoo kit jalis yi nga xamante ni day jar benn 8000 nee na gars yi doon nañ ko facturé ba quarante 40000 ngir rek euh, mën a xool luñ ca daal di coppati yóbbu rek ci seen i kër moom ëttu yéenekaay bi ne nekk ak ñàkk yërmande ci aw askan euh, ku koy wër rek ba daal di gis rek régime bi fi daal di jóge rek baye boo taxaw rek sañ nañoo fekk ab néew bu tëdd ñu di ko kaata ba pare nag di ko laaj ndax metti na am déet du samay kàddu ëttu kaay bi moom moo ko daal di fësal source a xëy lu ni mel ah, ni ki tey rek ci xatam bu jëkk waaye it di ci def ay détails yu daal di yaatu dikkaat tamit ah, ci ñenn ñoo xamante ne si nee na jamono ji moom li ñu daal di gis ci rapport yi bu ñu koy daal di lim xol bu jeex te naqari la ñu cay daal di gis ndax ci Dakar dem dikk foofee rek nee na ca conseil administratif ba la ñu fa daal di gis lu toll ci 530 mille yoo xamante ne si dañu ko rek di ko jël saa su nekk eh, di ko daal di jox ña fa daal di nekk waaye ëttu yéenekaay bi dikkaat ci directeur général bu nga xamante te eh, moom moo daal di addu nee na lu toll ci 20 millions la gars yi doon jël maanaam léeg-léeg da ngay gis ñoo xamante ni ay cumul de fonction yoo xamante ni kenn waru ko boole la ñu doon def eh, te ñooñee seen i koppar sax mi ngi doon toll rek ci salaire yi ñu doon fayeku ñaari millions ak juróomi million te ëttu yéenekaay bi nee na lu ci ëpp ci ay marché public yu fa daan nekk dañu ko daan gardaajo maanaam séddoo ko ci seen biir lañu doon def sans compter privilèges yi ñu fa doon am moom ëttu yéenekaay bi ne li xew ci réew mi kay kenn xamut lan la dañ ko rek daal di war a lijjanti ba tax na Bassirou Diomaye Diakhar Faye di sàkku rek ngir ñu daal di koy rek leeral waaye Prodac ak ki nga xamante ne si rek moom moo di rek Pape Malick Ndour moom ëttu yéenekaay bi nee moom it daal di nañu koy joxoñ baaraamu tuuma ci mbir mu ñu mel ba tax na ëttu yéenekaay bi ne gorob njiitu réew mi président Macky Sall ba woon eh, di Mansour Faye moom eh, ñu ngi koy tudd rek ci ak looxoor goo xamante ni eh, def na ko ca foofee ñu ko daal di dénkoon moom ëttu bi ne mbir mi yemul rek jëm ci Dakar dem dikk Prodac ndax maire bu Saint-Louis moom itamit rapport yi daal dina koy tudd waaye tamit di àddu it jëm ci yi nga xamante ni moom moo di rek ay surfacturation yu ñu doon def moom ëttu yéenekaay bi ne bu ñu jógee ci loolu of nag li mu àddu jëm rek nekk ci 40 dossiers yi mu teg ci table bi nee ci am na ci fukk ak ñaar yoo xamante ne si rek ay finalité la ñu koy daal di def maanaam mbir moomee lu yàggul dara rek des na ci daal di taxaw waaye àdduna it jëm rek ci kits jalis yi nga xamante ne eh, ci mbas mi di Covid 19 foofee ca jam ñaajo nee na dañu ko doon facturé ci rek 40 eh, 000 francs ci loo xamante ne si rek eh, mille francs lay jar ba montant bi egg rek ci 4 milliards te mbir ma rek ëttu yéenekaay bi jàpp ni bu ñu ko toppee ba ca cappaandaw ga mënees naa gis rek lu gën a doy waar loolu ba tax na ëttu yéenekaay bi ne lu jëm ci contrat Akilee ak Senelec tam juróom fi coow lool it faw rek ñu daal di koy càmbar ndax ñu ngi tudd rek ay milliards yoo xamante daal di ne mër euh, foofee moom ëttu yéenekaay bii di Source A moom moo ko daal di fësal l'info quotidien xëy di àddu ak cour des comptes rapport yi nga xamante ni jot nañ ko daal di fësalaat niki démb moom ëttu yéenekaay bi ne dañoo daal di yokk ci xar mi karaw euh, fekk si yenn ci ay rapport yoo xamante ne si publier nañ la Mame Mbaye Niang Mansour Faye Moussa Diop ak li nga xamante ne si rek moom moo di euh, Sénégal ak lii moom ëttu yéenekaay bi ne loolee lépp di ay mbir yoo xamante ne bu ñu ko toppee ba ci cëppaandaw ga loxo dina daal di dar gémmiñ moom ëttu yéenekaay bii di leen l'info quotidien ba tey di daal di àddu euh, jëm rek ci ay lourde surfacturation yoo xamante ne si rek dañu ko daal di nemmeeku euh, foofee rek ca loko Africa moom ëttu yéenekaay bi ne ci jamono ji nga xamante ni si sax yi moom lañ leen ko daal di joxoon ca ka fa nekk coût mu ngi daal di toll woon ci 38 milliards 455 millions yu toftal 455 moom ëttu yéenekaay bi ne waaye gars yi yokk nañ ko rek yokk gu tar ndax ci 2016 ba ñu koy jot euh, ci cinq milliards sept cent seize cote la daal di toll woon euh, ñi ngi wax rek ak yokkute gu toll ci deux milliards sept cent trente huit millions euh, foofee ca la ko Afrique moom ëttu yéenekaay bi di mbir moo xamante nit ak càmbar des na ci daal di war direct news ci la daal di xëy enquête jëm ci Moussa Moustapha Diop mi nga xamante ni dafa daal di jàpp rek ñaari Moustapha la ko moom ëttu yéenekaay bi tuddee ndax moom la ñu daal di gis rek muy cumuler ay fonctions yoo xamante ne si rek donte ne sax Ilimani jëwriñ ko doon bañ waaye moom moom li xewoon ci jamonoy njiitu réew mi président Macky Sall ëttu yéenekaay bi ne kenn mësu koo gis maanaam da doon fayeeku ay salaire yoo xamante ni kenn xamut fan la ko daal di tekk ba tax na ëttu yéenekaay bi eh, di àddu ko ne lii lépp moom moo daal di taxoon suñuy ndaw di daw di génn réew mi ba tax na ñuy des ci géej gi ndekete woote yaay gars yi rek ñi ngi jël suñuy koppar di ko daal di doxalee ci anam gu leen neexee libération ca daal di xëy ba àddu ko ne euh, bàyyiwuñu dara moo xam muy Covid euh, xaalis bi ñu ci daal di dajale woon wàllum suuf ba ci rek euh, leneen nga xamante ni moom moo di or ba nekk foofee rek ca saba dollar moom ëttu yéenekaay bi ne nu leen neex la ko doon doxalee ba tax na muy àddu ko ne foofee ca saba dollar fa lañ doon gis rek ay nit yoo xamante ne si dañuy jël ci ay prime yoo xamante ni kenn xamuñu fan lañ ko daal di teg cinquante millions un milliard jàpp sept cent millions yoo xamante lu ca bari rek jamono ji kenn xamul fan fan la ko gars yi daal di dugal moom ëttu yéenekaay bi di libération moom moo daal di àddoo lu ñu mel 24 heures quotidien naan ko saba dollar la fa xew moom faaw rek gouvernement bu Sénégal euh, taxaw ci ndax foofee rek lañu ñu daal di gis rek ca Kédougou euh, ci atum 2020 ba 2024 bi ñu daal di nekk rek yenn ci 442 kilomètres hectares yoo xamante ni dañu fa daal di rek tibbee li nga xamante ni moom moo di or euh, foofee gars yi rek bari na ci loo xamante ni leerul ci ñu doon def contrôle ndax gis ci ay njuñjaak dafa daal di rek bari lool ginnaaw coowul rapport dañu fay daal di jóge jàll ci leneen coow loo xamante ni niki ki tey rek fës na ci yile ëttu yéenekaay ba soleil national xëyee ko eh, di njiitu réew mi président Macky wala njiitu réew mi sax président Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi wàccoon ni ki démb foofee ca Mbourkat ginnaaw rek yenn ci ay coowal suuf yu ñu fa doon tudd moom ëttu yéenekaay bi ne eh, fi mu toll ni kay gars yi rek seen fit yaa ngi ci seen digg bopp ndax kii di président Bassirou Diomaye Faye dafay wàcceel boppam ci li nga xamante ni moom moo di ci terrain bi ngir saytu la fa daal di xew foofee it la mu daal di gis rek nee na nguur gi fi daal di jógee lu ci ëpp euh, dañoo daal di rek pàccoo suuf sa ci daal di nekk ndax euh, foofu la ñuy daal di gis rek ay nit yoo xamante ni euh, dañ leen di jox lu toll rek ci ñetti hectares juróomi hectares am ci ñoo xamante ni sax fanweer jàpp juróom fukki hectares lañ leen jox moom ëttu yéenekaay bi ne mbir ma ëpp na loolu ndax ba ci 200 ectare am na ñoo xamante ni si rek kenn nit képp la ñu koy daal di jot yor quotidien naan loolee moo tax niki mbuurkat démb autorité yi daal di nañuy tiit ndax président Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa daal di rek wàcc euh, ci anam goo xamante ni si yëgalu ko kenn loole sax moom moo daal di tax bépp travaux bu fa nekk euh, sàkku na rek ñu daal di koy dakkal ba leeral rek coowal suuf sa fa di am vox populi di ko daal di dëggal ci xëtam bu njëkk ne niki démb rek moom njiitu réew mi sokki ci boppam la daal di def euh, ak suuf si nga xamante ni dañu koy daal caxat caxatee foofee rek ca mbuurkat loolee it daal di ne jëlub dogal ngir ñu daal di koy dakkal ak fépp foo xamante ne si lu ni mel daf ko daal di laal vox populi naan nee na sax dàqul ñu topp mbir mi rek ba ca fa mbaxana doone benn ndax li mu gis ci réew mi jamono ji rek daal di nay tey am xelam ñu jóge fa jàll ci Sud Quotidien démb nekkoon premier mais di fête di travail moom ëttu yéenekaay bi ne loolee sax daal di nay tax moom jiitu réew mi daal di nay toog waxtaan ak ñi nga xamante ni si rek ñooy secteur ci wàllum liggéey ak seen i ñaxtu ba ci seen i jafe-jafe loole président ba Bassirou Diomaye Diakhar fay daal dina cay àddu ne it eh, dinañ ci daal di indi ay saafara eh, ci secteur bu ci daal di nekk ñu daal di koy ndar keppee ak Walf Quotidien mi nga xamante ni ni ki démb eh, suñu naataango yooyu dañu fa daal di gis rek jiyee ju metti ju fa daal di am di ak lakk goo xamante ni moom ëttu yéenekaay bi xëy na rek fësal ko waaye di àddu ak a def xayma tamit ci koppar yu takku yi nga xamante ni jot nañ ko daal di ñàkk rek ci boobu musiba mbaa ba kumba moom ëttu bi ne lu toll rek ci 500 millions ñu ngi koy daal di xayma rek ne jot nañ ko daal di ñàkk foofee ca Walf Quotidien di leen masaw bu baax ba tax na ëttu yéene bi di àddune lu jëm rek eh, ci tàmbaliwaat liggéey bi foofee moo xam muy Walf FM ak lii di fi TV ba ci Walf Net loolee yëpp eh, nee nañ faaw rek mu daal di jëlaat temps ndax la ñu fa ñàkk ci ay koppar daal di nay takk lool eh, bi leen ëttu yéene kay di Walf Quotidien moom moo ko daal di fësal dafay mel ni loolu moo daal di gën a fës ci li ëpp yéenekaay yi xëyee ni ki rek ci seen i xët njëkk yamoo ak alxamis benn fan wala ñaari fan sax ci weeru mai atum 2024 woy leen di ànd ak suñu programme ci kanam tuuti di ngeen am seen émission actualité débat cant ak ngërëm da leen di ñeel di leen ñaanal kenn lu jàmm الوجود والخدم حمد المسيح حمد وشكر وتقبل الخدم